alors euh, ki ñu war a defal jàngat euh, embouteillage yi moo ko xaw a téye mi ngi yegg si dans pas longtemps moo tax euh, ñu kon profiter dalal suñu invité di Moïse Sarr bokk ci comité de pilotage bu donc nouvelle responsabilité xam ngeen ne tey jii am na activité buy am tey jii ci ngoon Moïse Sarr ñu ngi lay nuyu di la dalal ci ci plateau bi. Dieynaba maa ngi lay nuyu. Mhm. di nuyu aussi. sa naataango yi. Mhm. gis naa fi sama benn grand frère maa ngi. Ablaye Ablaye. Mhm. Mhm. ak Maymuna ak Maymuna di nuyu Sénégal yi également. di kontaan nag ci invitation bi. alors Chérif Ablaye a waaw laaj bi ni njëkk laaj euh, monsieur Moïse Sarr ñu ni ci jamono en tout cas régime Macky Sall 12 ans yi jot nga fee nekk ki yor affaire bourse étudiant yi nekk fële ca France nekkoon nga fi secrétaire d' état ci wàllum euh, sénégalais de l' Euh, justement affaire immigration boobu lan bëgg a taxaw sax parce que comme ni ñu ko waxee doomu Sénégal doon bitim réew gis nga li xew fële ci Mbuur encore ak phénomène bi ba léegi seen nguur ak léegi mi ngi continuer lan nga jàpp ni moo ko waral ak saafara lan la war a doon. mais mu nekk un euh, boo xam ne ñëpp ci war a jóg c'est vrai nag euh, yeggoon na fi c'est vrai aussi am na ay jéego yu am solo yoo xam ne nguur bi fi jógee defoon na ko say foro ko également. dem nañ également ba vers la fin du régime aussi phénomène bi jógaat mais yaakaar naa ne régime bu bees bu ñëwee nag war a indi yaakaar wala indi effectivement espoir bu am doole ñu gisaat ne phénomène bi dafa jógaat yaakaar naa loolu aussi war nañ ci taxaw xoolaat ko parce que nag yaa ngi xool boo xoolee ni ay 2023 22 23 ñi fi nekk tey lu ñu doon wax ma ne ah régime Macky Sall régime Macky Sall régime Macky dem nañ sax ba dañu taxé en tout cas de tout alors que am na ay jéego yu am solo loo xam ne defoon nañ ko ci ba gisoon na effectivement phénomène bi demoon na bu wàcc bu baax a baax mais li ma wax léegi rek je pense que régime bu bees bu ñëwee espoir la war a suscité espoir boo xam ne même ku bëggoon dem war nga mën a toogaat parce que li ñu indi comme programme li ñu indi comme euh, ambition war a mën a dalal xel bi mais malheureusement yaakaar naa ne temps yi moom métti na tar na te maa ngi profité aussi pour jàllee ñi fii ñi ci génn àdduna. et di souhaiter aussi un prompt rétablissement. donc impuissance su yéen way politique la kon yéen a mënut. no régime bu mu ci mënul daal dañu la. je que je pense que boo ko defee noonu je pense que ça sera simpliste. parce que boo xoolee comme ni ma ko waxee léegi rek xoolal en 2006 2007 phénomène naka la meloon nga xool de 2011 2012 jusqu'à la Covid. juste la pré Covid après Covid la phénomène ñëwaat ci biir Sénégal te loolu aussi am na ay euh, raisons yoo xam ne on l'avait avancé à l'époque mhm. parce que dafa mel ne comme benn appel d'air gars yi ne ah gis nga Europe Covid bi ñëw na ñu bëri fàttu nañ et ainsi de suite boo demee Italie am na liggéey boo demee tel Espagne am na liggéey wala tel ou tel donc loolu taxoon na ba ñu bëri jogaat beneen bi aussi nga xam ne am na jéego yu am solo yoo xam ne dafa nañ ko fii ci biir réew mi mooy au niveau de la police au niveau de la gendarmerie mais c'était pas le tout répressif il y aussi effectivement des programme yoo xam ne incitatif côté emploi mooy xëyu ndaw yi mooy la DER ak yeneen dispositifs yoo xam ne demoon na ba effectivement joxe aussi ay résultats n'empêche comme ni mu ko waxee rek bu ñu demee aussi ba côté océan bi ñu fat ko mais gars yi gisoon nañ ñu nekk non on va essayer de passer maintenant par la par la Méditerranée maanaam yoonu Libye bi am na temps yoo xam ne jogoon na côté Maroc bi aussi jógoon na mais départ au Sénégal demoon nañ en toute honnêteté ba mu xaw wàññeeku de manière drastique. Hmm. mais li ma gis temps yi xaw ma lu xew mais très franchement te maa ngi woo aussi autorités yi di woo aussi société civile di woo aussi parents yi parce que phénomène boo xam ne bul ne non ñi fi nekk rek wala ñi dirigé rek ñoom ñoo ko war a jël en charge je pense que ñun ñëpp la a commencer également par les jeunes je pense que Ablaye boo xam ne yàgg na xam na ne effectivement tout. lépp ngi Afrique l' avenir doit se jouer en Afrique et particulièrement chez nous. Mm. bu ñu toogee di wax effectivement pétrole maa ngi ñëw gaz baa ngi ñëw am nañ régime bu bees yaakaar na une fois de ah. war nañ mën a toog mais loolu day fekk yéen ñi nga xamante ni yéen ay njiit yi. alal ji leen jox ngeen yoon ko alal réew ngeen yoon ko maanaam bonne gouvernance mais loolu je suis totalement et entièrement d'accord ressources yi aussi ñu yoon ko de manière transparente absolument ku nekk gis ci sa bopp mais bu dee am ñu ko aakimoo ñeneen ñi ci seen bopp mais loolu je pense c'est un combat quotidien en tout cas en ce qui nous concerne et moi particulièrement je le dis et je le répète je suis un apôtre de la bonne gouvernance hmm. et je pense que côté reddition des comptes aussi elle doit pouvoir se faire par contre et ça ne doit pas être une justice de vainqueur nañ ko def teg ko ci yoon pour ñëpp pour ñëpp loolu moom je pense que c'est très clair yaa ngi wax euh, foog ñu boole doole yi xam nga bu njëkkoon euh, dañ doon gis ni euh, ndaw yi doon nañ leen wax ni boo leen demee yoon bi baaxul Barça wala Barça mais tey dañu gis ni dafa am beneen phénomène maanaam fi yoon yi ñuy jaar dafa bari dafa gën a bari doole est tamit naan leen toog leen fii mën nga tekk fii tamit lool rek doy na. non loolu déwul parce que loolu mooy sensibilisation moo war mais au-delà de tout il faut nga xool les causes causes yi nag am na aspect économique et je pense c'est important de le dire surtout aux nouvelles autorités que l'économie est vaste elle dépasse de loin le matraquage fiscal boobu mooy benn la deuxième chose mooy emploi surtout emploi des jeunes loo ci mën a def surtout dans nos pays boo xam ne boo xoolee effectivement côté euh, jeunesse bi dafa pourcentage bi dafa am doole dafa am solo yaakaar naa ñëpp ci war a taxaw moo tax côté boobu la création d'entreprise am solo entrepreneuriat am solo def ay dispositifs yoo xam ne effectivement encadrement formation incubation ci ay projet loolu yëpp yaakaar nañ ko ci liñ ci war a def beneen bi nag mooy comme li may wax léegi rek impliqué ñëpp impliqué ñëpp parce que nit ki bu xamee ne mën naa tekki ci réew mi yaakaar na doo jël yeneen voies yi pour dem bitim réew. Hmm. beneen bi aussi c'est important mooy nos partenaires occidentaux c'est important quand même ñuy joxe visa yi rendez-vous yi ñu mën ko améliorer. bu baax a baax. dem bi ak dikk bi. Hmm. c'est extrêmement important. d'accord hmm. léegi il y a plusieurs causes il y a plusieurs. léegi ñu ñëw ci mbiram politique mooy mbiram nouvelle responsabilité boobu ñu wax. Euh, Amadou Ba tey ci ngoon ñu ngi koy xaar ngeen commencé benn processus nee na pour création parti ginnaaw kon bi mu échoué ci élection présidentielle yi yow APR nga bokkoon. te muy dëgg da nga faa génn. il faut dire quand même à mu ngi sama ginnaaw. Hmm. que boo xoolee bu ñu jógee ci présidentielle bi et même avant la présidentielle euh, man dama defoon benn analyse boo xam ne euh, def na defoon naa ko partagé ko à l'époque même. avec le président de la République. Macky Sall Macky ma ne ko boo xoolee nu mu demee nii ci côté gouvernance bi ci côté également euh, mooy le management des ressources humaines ci côté aussi yeneen comportement yi on voyait que xaw na day waar mais ñun au niveau de Fatick boo xam ne c'était la base naturelle et affective du président République ñu ne il faut ñu créer benn mouvement boo xam ne mu ngi woon ci biir parti bi ba ñu tuddee ko nouvelle dynamique. Hmm. mu regroupé ay ay maire ay responsable maa ngi koy waxtaanee ni di leen euh, gërëm aussi di leen sant au passage ñu ci liggéey parce que on voyait on commençait effectivement à perdre du terrain et boo dégloo sénégal yi nga xam ne amoon na benn désaffection boo bu commencé woon di am léegi néanmoins gis nga le processus aussi de désignation nu mu demee mais bu ñu ko defee effectivement bu ñu désigné Amadou Ba. yaakaar naa ne man na mooy Sarr bokkoon naa ci ñoo xam ne ñoo njëkk a jóg jàpp ci liggéey ci dem ba jeex. bu ñu ko defee aussi gis nañ tous les péripéties yoo xam ne effectivement ñi gën a fragilisé le président Amadou bu nekkoon le candidat du pouvoir c' était même le pouvoir l' national on a vie ce qui s' est passé. des responsables politiques ñëw def lu la neex saboter à la limite. la campagne électorale. donc loolu bu ñu paree ci loolu man j'ai fait une analyse froide avec des amis ma nekk effectivement politique nag bu demee ba yow nga mën a jël sa mbër ah ngëmb ko mu war a dem ci li ñu naan élection présidentielle. Hmm. élection de régime yow mi ko ngëmb nga nekk le premier à le liquider et le mot pas fort donc yaakaar naa ne am na lu ma yaakaaroon li ma gëmoon ci affaire bi nekkatu ñu commencé aussi boobu ba léegi yaakaar na maa ngi koy wax di téléphone euh, à la télé ñu commencé dem sin di wër di waxtaan ak ñëpp pour jox mouvement boobu gëdd jox ko doole mais tout en restant cohérent tout en restant constant parce que j'ai soutenu également un homme boo xam ne nag bu ma ko xamee président Macky Sall moo tax xam ko muy Amadou Ba oh. mais je l'ai pratiqué déjà au ministère je l'ai soutenu bu ñu ko désigné te pourtant bu ñu commencé di wax dañu désigné kii wala désigné kii kenn dégguma ma wax parce que parti bi moo taxawoon ne par président am nga carte blanche ku ñu décision ma jàppale ko. Mm-hmm. mais bu ñu ko décision ma jàppale ko nag ma gis ne effectivement sincérité boobu engagement boobu amu fi woon c' était à la limite un jeu de dupe beaucoup de militants des sénégalais même ont été choqués par ce qui s' est passé man je ne me voyais plus dans ça. Mm. donc j'ai continué avec mes amis di élargir. et moom aussi le contact n'a jamais été rompu muy nas lu ma ma toog ak moom ma waxtaan ak moom mais dayul ma jël délégation bu am doole ba suñu mouvement bu tudd nouvelle dynamique ñu dem toog ak moom mu expliquer ñu fu muy jëm ñu engagé wu. Hmm. jàppale ko soutenir ko liggéey ko parce que lu muy nas nag jàmm réew mi la jàmm Sénégal la. lu tax choisiroon choisiro leen xeex ko de l'intérieur maanaam seen parti seen kër bi ngeen am. plutôt que mais loolu la loolu la tabax seen këru bopp. est-ce que da yaakaar ni. mais je pense que la maison elle est abîmée boo ko bëggee tabax de l'intérieur di nga perte temps di nga à la limite aussi perte énergie parce que ñu dem ba gis élection présidentielle présidentielle laa wax ces gens la mesuré wuñ attente bi ces gens la à la limite euh, wone comportement yoo xam ne boo ko analyser rek mën naa wax sax à la limite euh, mun soxor la wala mën ma comprendre mën ma comprendre. mais mais c'est quoi le problème c'est l'homme ou euh, c'est le peut-être c'est le choix du président Macky Sall qui posait quand même problème. Mais non le choix là le choix là à, à, à du vrai problème? à du vrai je pense que les gens ont beaucoup épilogué le choix n'a pas été un choix à la limite de euh, de de de de, de, de c'est un choix de raison c'est pas uniquement le cœur c'est un choix de raison boo xoolee candidat yëpp pris individuellement Amadou avait le meilleur profil ñëpp a ko wax je pense que tous les analystes politiques à l'époque ont pris individuellement. candidat par candidat ou bien à la limite profil par profil et président wax na ko à plusieurs reprises d'ailleurs que c'était le profil qui sortait et qui pouvait rassembler et qui pouvait donner de l'espoir au Sénégal loolu ñëpp ci nangu woon ñëpp a ko même ñeneen ñi sax ñu bëri ñëwaat nañ jël parole ne que ah je vais soutenir je vais appuyer je vais accompagner Amadou mais entre wax bi nag ak jëf bi yaakaar naa ne il y avait mais moom est que wax na leen réellement moom ce qui s'est passé parce que am na lu ko Macky di reproche. je pense que euh, tey à 15 heures moom lay lancé effectivement la nouvelle responsabilité am na euh, lettre boo xam ne bindoon na ko mais euh, tey yaakaar naa ne ci discours am xam naa ne dina am ay éléments yu am solo yoo xam ne dina ci ñëwaat. yaakaar naa ko. parce que lu ñu ko mën a reproché nag man sëgg naa xool naa te maa ngi ci biir et effectivement information quand même naa ko doon am. mais gisuma dara ci li ñu ko reproché jusqu'ici hmm. ci li ma xam. ci guerre gi ak Macky Sall mën na tax da ko da ko bëggoon a suuf foofu mais guerre bi waaw man dee. waaw mais hmm. assemblée. Hmm. assemblée mais laaj leen balaa ñu leen tas lu ñu yëkkati woon lépp fu mu yem dañ ko tegaat ci suuf à la limite responsable yi ang jëloon Amadou Ba attaqué ko bu ko fragiliser mais certainement ñu bëri ci ñoom ñëwaat nañ. dañoo à la limite euh, ils ont ravalé li ñu waxoon mais ñëw nañ mais ñëwuñu avec engagement avec détermination ça il faut le dire donc ma ne même bu ñu demoon loolu laay wax nit ñi ma ne bu ñu amoon un bloc soudé compact dem ñu gagné ñu mais c'est ça la démocratie dañu doon jogaat liggéey continuer mais à chaque fois amul benn évaluation bu am ba léegi amul évaluation une campagne présidentielle un régime bu def 12 ans ak nu ak lu ñu wax lépp. mais bu ñu pare woon au moins war nañu mën a woote sax def évaluation suñu biir. Hmm. ne ah lii ak lii moo tax nii ak nii la war a jógaat. Hmm. amu ci. Hmm. dañoo gis lan la ñuy mën a xaar ci yéen euh, vu que fi mu toll nii euh, débat bi ci wàllu politique euh, niveau bi dafa baax trop xaxarante lañu fiy gis ak téesante lan la ñuy xaar concrètement. absolument et ça c' est extrêmement important je pense qu'il faut que ñun ñëpp ñu relever le défi le débat le niveau débat c' est extrêmement politique mënul nekk. ci ay saaga ci ay invective ak yu mel noonu yaakaar naa ne grand temps que ñu mën a def ay propositions concrètes même ñu nekk ci opposition ma je préfère des opposants responsables mhm. que des opposants destructeurs. est-ce que loolu dina dox fii. mais même mais war na mën a dox. Mm. parce que ça doit aussi être une exigence du peuple des citoyens sénégalais on doit plus se contenter de voilà ay ay ay laay fii. ay ay 48 heures ñu saaga telle ou telle personne débat boo xam ne c'est euh, dessus mais quelles sont les en tout cas en ce qui ak euh, le président Amadou Ba et je pense qu'il va insister là-dessus on li bëgg indi c'est un sursaut citoyen moom lay wax le je pense que on va laisser quand même à, euh, à, au président ah pour le moment on va se contenter de la nouvelle responsabilité. mais qui veut dire énormément de choses. ah et qui veut nouvelle responsabilité lu bees la waat te il faut ñu delluwaat ci ginnaawam parce que am na lu ko nit ñi joxañ baaraam tuma ci. mais ci wàllu alal moo mais jomaay mii sax ba mu génnee kaso moog Sonko li ñu njëkk a song ci moom. Mhm. mooy lim yor ci alal moom daanaka lakk sax jeexalu ko. waaw xam nga loolu yow yaa ko wax. non non a parlé le gouvernement actuel ñoo ngi ciy wax ñoo ngi ci àddi lu bari bëri man de à ma connaissance jusqu'ici tegaguma gisaguma benn rapport bu épinglé le président Amadou Ba te politique yi bëri nañ fi te yaakaar naa ne mu ngi ci ci seen politique bi mu ngi ci administration occupé ci ay post mën naa wax ne impôt da ko jeexal trente plus de trente ans dans la haute administration te jusqu'ici laa wax gisuma ko dégguma ko te loolu nag bu amoon xanaa ci loolu lañ mën a apprécier nit ki jub na wala jubul nit ki am na lii te du mu ko amee jaarul yoon wala det mais wax nag yaakaar nañu aussi loolu dañu ko war a arrêté actuellement c'est-à-dire stigmatiser maanaam indexé maanaam catalogué te boo demee bi ci biir amul benn fondement amul benn preuve loolu je pense que war nañ ko moytu bu baax a baax. Mm-hmm. mais lan ngeen jàngee ci seen compagnonnage ak. Euh, président Macky Sall bi nekkoon seen jiit nekkoon l'alpha et l'oméga parti bi moo doon décidé ci seen compagnonnage bu bees pour que quand même xëy na loolu ngeen fa dund ba mu jural leen tey ngeen génn bañ leen la daal aussi ci compagnonnage ak Amadou Ba bi nga xam ne moo initié mouvement bi. c'est extrêmement important je pense qu'il faut effectivement aussi qu'on dépasse euh, les partis où il y a une seule personne qui décide à la fois la notion de carte. blanche war na mën a évoluer je pense que cette démocratie interne au niveau même du parti war na mën a am je pense également que les compétences doivent être utilisées et à la promotion du mérite war nañ ko promouvoir loolu ay quelque éléments la yi ma yaakaar ne ci li ñu bëgg a def nii dañ ko war a inscrire au cœur l'écoute et des militants et des responsables mais surtout également des citoyens la base maanaam mu bañ a am une rupture entre en tout cas les responsables du parti et ceux qui sont à la base cette proximité aussi war nañ ci liggéey bu baax a baax mais surtout le management le management le management je pense qu'il y a un problème de management bu am Sénégal c'est la proximité ki jege naa ko lu ko neex mu wax ñeneen ñi la limite euh, voilà quelles que soient les compétences quelles que soient les ambitions on choisit il y objectif qui peut faire en que ku ne ñu mën a comprendre loolu aussi gisoon nañu ko fi te war a mën a jeex. mais baal ma rek Chérif dafa am benn question bu nga xamante ni euh, bu ñuy wax nouvelle responsabilité dafa ñëw tout le temps mais par rapport à un peu la composition est-ce qu'on bis. non. non voilà ça ça déjà nous le Sénégal n'attend pas ça de nous. waaw <laughs> c'est ce qu'on voit c'est ce qui lay dem. Euh, délégation yi ah, Amadou Ba di jiite yëpp comme ni ko Dieng waxee. mais mais mais mais voilà par rapport ak bis. Euh, mais également est-ce que waxtaan ngeen ak ñeneen ñi nekk ci kii bi parce que euh, ku si mel ni par exemple Barthélémy Diaz euh, am na peut-être benn taxawaay bi nga xamante ni peut-être mun na ko am ci cette nouvelle responsabilité est-ce que barte bi da ngeen koy ubbi ci ay yeneen perspective wala nag ngeen koy tëggee parce que comme boo nee nouvelle de responsabilité Amadou Ba on va dire ah les gens de l la nar a repêché si biir nouvelle responsabilité seen composition wu parti bi. waaw xam nga je pense que tey boo fa ñëwee di nga gis euh, euh, li nga xam ne peut-être euh, ça sera une réponse ou une partie de la réponse à votre question mais euh, nouvelle responsabilité mënul nekk réceptacle ou bien tra en tout cas ñu transvaser l'APR à la nouvelle responsabilité. c'est pas possible xam nga sénégalais xaruñ loolu ci le président Amadou Ba te moom il en est conscient la nouvelle responsabilité doit même dépasser les politiques ou bien ceux qui sont encartés ñoo xam leen ci champ politique bi je pense c'est des visages nouveaux ñu bëri ñoo xam moo suñu dugg ci politique des cadres sénégalais d'ici et de la diaspora ñoo xam ne effectivement ils veulent faire la politique autrement sur la base de propositions concrètes audacieuses pertinentes et non pas uniquement sur euh, la proximité ou bien sur le refuge que ah maa ngi foon fee def fa tel damay ñëw laxu ci tel pour ñu ne ma tel ou tel loolu moom je pense que effectivement ma ngi ci liggéey ah moo tax euh, moom ça a même pris du, du temps parce qu'il fallait aussi mu discuter ak tout le monde et même tey il n'installe pas le parti il fait le lancement du processus c'est-à-dire qu'il continue de recevoir mm-hmm. de rencontrer parce que va avoir toute euh, les compétences ça doit être une coalition de compétences naam dina am ay politique ñu nekkoon APR donc aussi ñu njëgoo ci yeneen parti et c'est important ay mouvement c'est important ay personnalité même ñoo xam ne mosuñu def politique des jeunes sénégalais. le parti se positionne le parti se positionne comment évidemment Amadou Ba majorité bële la bokkoon tey opposition le parti se positionne comment. le positionnement idéologique man je préfère effectivement ñu bàyyi ba mu def discours bi. Mm-hmm. oui parce que nit ki aussi tey la. mais est-ce que loolu. mais delloo ci li ma la doon laaj. non c'est-à-dire luñ ne nii nga ne nañ ko ko bàyyee. non non non non non non au contraire non. on a travaillé xam nga nee naa la léegi membre du comité de pilotage. il y a un comité. Mhm. d'hommes et de femmes qui a travaillé. et qui a travaillé d'arrache-pied. mais problème mu démocratie interne day am toujours. non mais mais mais on démocratie interne moom man man la comme partout. est est du day sant comité de pilotage bi finalement ñu def. non man maa ngi ci biir. au contraire ñu ñuy liggéey dem non non non ça ça je vous donne la garantie que demul noonu. ok ñu wax ci reddition ñu ngi est-ce tiitaloo leen seen mbër bi tuuti. kan ci. Amadou mais nee naa léegi. Mm. est-ce que yow gis nga rapport. Mm. bu épinglé Amadou Ba nous sommes dans un pays de droit mënoo jóg nii rek song nit ki te même am na lu ko xam ne maa ngi koy dénoncé parce que bu nu nag kii du génne réew mi da am ay procédures la liberté de se mouvoir d'aller et venir les consacrer mënoo ñëw xeex pour liberté ba ñu jox réew mi nga bëgg imposé imposer nit ñi une dictature qui ne dit pas mm. les gens feront face. avec courage et détermination mm. avec fermeté également. Ah, les dernières questions pour Moïse Sarr yow kenn mm-hmm. sant yàlla fi ma jaar yëpp ba léegi maa ngi wax ba léegi gisuma benn rapport benn interpellation bu mel noonu mm-hmm. je pense que li mujj rek mooy Covid bi géré nañ ko gis ngeen rapport yëpp man ak Amadou Ba ñoo nekkoon au ministère des mm-hmm. c'était lourd c'était difficile gis ngeen li kenn joxuñu kenn joxoñu la joxoñu baaraam séeréer la bu dégg séeréer la bu dégg voilà. c'est bon donc dire que on est vraiment zen. mais dama aéroport laaj dama aéroport euh, Blaise Diagne laaj boo xam sa tur. war na fa dem ah. parce que effectivement war naa dem France. mais amatoo passeport diplomatique. non mais euh, non mais man man man man am passeport diplomatique mais am na au moins. visa. non mais moom dafa am benn passeport sax maa ngi woon ah. non boobu nag. moom ah, je pense qu'il serait pas il serait pas éligible. il serait pas éligible à la présidence. non non non mën naa mën naa confirmer je n'ai qu'un seul passeport c'est important dégluma dégluma boobu moom day dama mooy ma tuuti ma leeral ko. waaw leeral la leeral la passeport kese kese kese la am. passeport sénégalais nationalité sénégalaise rek nga am sénégalaise. pour la petite histoire j'ai renoncé même au certificat de sélection du Québec en 2016 2017 pour le dire. je reste sénégalais. ok et je travaille pour le Sénégal. France ah. yàgg naa fa. am fa doom war fa dem nii sax mais carte de séjour la fa am. xaw hmm. ma. nationalité nationalité. ça c'est important de préciser bi rek lañ bëgg a taxaw. Euh, dernière question de Chérif. <laughs> waaw mooy symbolique bi rek quoi. 9 9 9 mais c'est plus qu'un symbole c'est un rendez-vous au niveau départ. vous avez uh-huh. évité le 11 au moins. voilà non mais au moins vous avez évité le 11 septembre. symbole la. oui. 9. 9 9. 9 9 gis nga. et on appelle. tous les Sénégalais. tout le monde ñu ñëw accompagner ko parce que ñoo ko moom c'est pas le comité c'est pas Amadou mais nous voulons que ça soit le parti du peuple sénégalais. un parti boo xam ne incontournable avec un objectif bien précis c'est la conquête. ngeen jiital ndaw nag teg ci. mais absolument ak jigéen ñi. waaw ndaw yi ak jigéen ndaw yi important moom dafa mel wut ak Diomaye ak euh, Sonko de ndax ñu naan ah, Papa Alé ngi dem ak a waaw mais mais mais xam nga xam nga loolu yëpp mooy ce que fois de plus. Ah, xam nga boo bëggee boo boo xoolee nit ki nga xam ne foo xam ma fan laa koy jaar. tu es obligé maintenant di à la limite euh, entretenir ay rumeurs. Amadou il est constant ma ne la Amadou non mais mais bu muy recevoir Pape Alé du tey. du tey loolu je pense que ñoom ñoom ñaar la. man du ma ci dugg mais li wóor ba wóor mooy un à un on va lancer ce parti là et nous voulons qu'il se situe dans l'opposition ah avec un programme bien déterminé. une opposition avec responsable avec une démarche absolument mmh. responsable et citoyenne. Mmh. voyez et qui va travailler aussi pour la paix. Mm-hmm. pour la stabilité. ñu delloo xel yi pour également le diisoo le waxtaan. loolu yëpp c'est des vertus bien sénégalaises et pour la préservation du modèle social bi ñu am loolu suñu trésor la suñu doole la et le respect aussi à la limite de tout ce que nous avons muy institution yi muy aussi les institutions religieuses lu am am solo la c'est extrêmement important et traditionnel. Mhm. loolu yëpp mu ngi ci parti bi. avec le concept paix et prospérité partagée. partagée. voilà comme comme boo xam ne ñëpp ci gis seen bopp. <laughs> seen bopp yokku ba yokku ba ko merci beaucoup <laughs> Moïse Sarr euh, donc euh, bokk ci comité de euh, pilotage donc bu nouvelle responsabilité tey la ñuy lancer processus bi kon à partir de 15 heures si benn hôtel bu nekk fii ci Almadi ma ma je vais taire le nom balaa Ibrahima Dieng kon di ma di ma di ma di ma attaqué suñu directeur tout merci Moïssa. et Sarr ñu ngi woo ñëpp ñëw leen ñëpp. ah wax nga dëgg de. présente la facture après. <laughs> en tant que diggante séeréer rek pël on te le pardonne. Ah, voilà merci ñu ngi waa jaaree bu baax a baax. merci beaucoup merci euh, Moïse euh, mi nga xamante ni moom moo waroon nekk kon suñu invité mais dañoo inter euh, kon changé mbir yi ndax suñu ki ñu waroon defal jàngat dafa doon tardé mais léegi la ñëw donc <laughs> sëñ bi Thiam moom moo kon ci comité. de pilotage de la nouvelle responsabilité merci beaucoup ñu dalal léegi jàngat bi